di teertu président Ablaye Wade noo gisee góor gi ak ñëw góor gi da leen yëngal ñoom dañoo dañoo ñemewuñu ñoom ñemewuñu Thank you. ak ñun ñu moom ko nag. tëw ko de. ah tëw na borom ah nga bëggee réew mi mën eh, suñu waa ji daa doon rek. ah daa doon rek. joxe naa la ko. mu dund. kaw bi ñu koy mën a Kalangulay Mas kay. Kalangulay Mas. Ndiaye ah maa xam ci ci gars de. man la maa dafay nekkoon. bëgg ko. ah. yow baaxul sama baaxul. yow ràmmee ko de nga naan. non non pour déedéet pour saa bi saa bi maa ko waaw. waaw. ndax doo saa su roñee. man général Pour conseil du Maïkouba moo ñu jox Masaalikul Jinaan moom rek moo xeexal Seex ma Bamba moom rek moo xeexal lislaam yaa dagg buumu jaam bi yaa dagg buumu tubaab bi yaa dagg buumu tubaab bi Sëñ Tuubaa rek ñu gëm moo dem Ndar Ndakaaru Alaajiri Daaru Muxti Loob Mbacké Abaaba Abarisik